Lassin. Bienvenue au restaurant fast-food pâtisserie Lassin. Inde mbokk yi yéena ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko jox ñun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 132 97 97 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba ko wax ni Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak extraordinaire au grand de tous ceux qui sont là et qui suivent cette déclamation depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes le sixième du mois béni de Ramadan, qui coïncide avec le 8 avril 2022 et c'est encore une extase perceptible sur tous les visages. Tous ces visages respirent, n'est-ce pas, une euh, gaieté qui se comprend par ce qu'ils ressentent, ces chassaïdes qui bercent l'univers et qui sont là euh, pour mais pour nous confier également tout le bénéfice charismatique qui est rattaché à ses écrits. Parce qu'en termes de bénéfices, le chef en a beaucoup dit. Il disait que ces, ces écrits peuvent faire parvenir l'aspirant à l'ancienne célé de Dieu sans qu'il ait besoin de faire, n'est-ce pas, une retraite spirituelle. Il disait à l'encontre de ces chassaïd, à l'endroit de ces chassaïd, il disait que c'est la formule, l'essence de la formule il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, qu'il a inséré dans ses écrits. Il disait qu'il puise directement de la tablette bien gardée, et évidemment, c'est ce, qu ce, qui nous fait comprendre la chute. Et point je ne m'abuse, point je ne me trompe, parce que j'écris en puisant directement de la tablite bien gardée. Et ils sont légion, ces écrits qui montrent, n'est-ce pas, euh, tout le bénéfice qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de cette déclamation qui parvient à joindre l'utile et l'agréable. Utile parce qu'il y a un bénéfice charismatique, agréable parce que, mais elle se fait avec force et dextérité. Voilà donc pour ce qui concerne la déclamation d'aujourd'hui. Et euh, sans plus tarder, nous allons l'antenne et vous laisser avec l'ambiance jusqu'à l'arrivée du calife. Et il y a beaucoup de bruit, les gens s'agitent vers la porte. C'est la preuve que bientôt, évidemment, euh, euh, va arriver dans la salle avec le son staff euh, qui est euh, ce, ce, groupe, n'est-ce pas, de fidèles, ces gens qui sont toujours à côté de lui. Et aujourd'hui encore, on voit un à un défiler les membres de l'illustre famille, ses frères cadets, ses fils, ses petits-fils. Ils sont tous là et personne ne veut rater la circonstance. Voilà donc pour cette journée du sixième jour de Ramadan, ce 8 avril. Euh, sans plus tarder, nous allons lancer l'antenne et vous laisser avec l'ambiance et vivre les moments qui restent parce que dans quelques instants, le Khalif va arriver dans la salle. Nous reviendrons juste après la déclamation pour vous présenter ce qui a été vécu, mais également pour revenir sur Jazbul Kolob qu'on avait commencé la dernière fois. Et merci et à bientôt dans quelques minutes après la déclamation, Inch'Allah. yegsil yegsil yegsil yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa usti bi safi hasanat La Sainte, bienvenue au restaurant fast food pâtisserie La Sainte mbokk yi yéena ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Kun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñëw woo bi le 78 132 97 97 78 132 97 97 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer